dañuy ñaan li ñuy tàmbale su sottee ak jàmm ak salaam ba suñu borom may ñu teg réew mi ci loxo yu set loxo yu jub ñu mën ko jubbanti ba njaboot gi askan wi gis ci boppam ba jigéen boo gis bu am am lu mu jaay bu am lu mu yëngu mu yëngu ci mu nga xamante ne bii loolu dina ko jógee loolu mooy yitte état suñu yitte jooju nag mu moo tax mu jaral ko. mbooloo mi bari lool nit ñi bari lool am ay partenaires am ay alliés yoo xam ne xam nañ leen ci politique ñu mag am ci tur waaye Ousmane xoolul tur xoolul juddu moom jub la xool ak maanute ak xam-xam jub googu ak maanute boobu ak xam-xam boobu ak pas-pas bi tax ñu sos parti bii dafa nekk ci Bassirou Diomaye Faye loolu moo tax mu tànn ko. te Ousmane ñun ànd nañoo ak moom yàgg ak moom wóolu ko lool suñu xel dal ci moom lool ba tax na comme nañu kooku la foofu lañ jëm ba leen di xamal nag jomaay mii mu leen tàmmal tànnal ñu naan Bassirou mooy Ousmane jomaay mooy Sonko loolu du wax kese loolu dëgg la ndaxte ñoom ñaar bokk nañu pas-pas bokk parcours jomaay ku nangoo gëstu ci diine la Ousmane ku nangoo gëstu ci diine eh. ñoom ñoom amuñu caaxaan ci ab liggéey seeni morom saa bu ñu joxee liggéey jox leen ñoom ci ñi njëkk pare la ñuy doon ci ñi gën a liggéey bu baax la ba tax na nag ñun ñii di ànd ak moom maasoo Ousmane Sonko mu jiital jomaay ñun dañoo jëlee nangu loolu ne jomaay mii mën nañ jiit ma leen di wax na nii c'est chance pour le Sénégal nañ leen ko jàpp te bañ ko caaxaane li ma leen di wax man damaa dëkk ci dëkk bii njaareen mu bokk ko teewuma feneen fii laa am fii la ma suñu borom tànnalee ma bokk donc mënumaa defar feneen bu dul fii tey jii bu ngeen ma gisee ma ànd ak Ousmane Sonko su fekkee dafa bëgg a doxal tabax Sénégal bàyyi njaareem ma bàyyi man njaareem moo ma soxal moo ma ñor te ci kaw gii nag ci laa dëkk ci laa fekk baax bu ma nekkee Ndakaaru ay tool la rek dama liggéey fii donc nag nañ àndandoo def ci fulaak fayda li ñuy ñodde ñuy njariñ ñu bëgg ko ànd ceeg Ousmane Sonko bu ñëwee ñu fexe ba njaareem du ci des ginnaaw cey du ci des ginnaaw Bassirou Diomaye Ousmane Sonko ñëw fas yéene joyanti jubbanti réew mi ba nga xamante ne bépp tappale dina fi jóge xam nga bu ñu demee ba ci am réew moo xamante ne bii dañu roy Cheikh Rafal di roy Serigne Touba ñu naan ñu ay toog muy dox loolu ay tappale la ay nit buñ bëggee defar seen réew dañuy jóg liggéey ànd ak pas-pas suñuy maam suñuy baay ñëpp ci liggéey lañ leen xamee ñu ñoon nasaxal nag di ñu defloo ay tappale naan ñu ay toog muy dox Ousmane Sonko nag nee na askan wi wax da ko waxati ko nee na du leen war ba mukk Ousmane Sonko wax mu ne du leen war ba mukk te nag defar réew mi jaral na ko ñu xatal ko tëj ko tënk ko indi ko jafe-jafe ci mbokkam ci njabootam mu ànd ak ngorom rek ñëpp fekke ngeen lépp amul lu ma leen ci nettali yéen ñëpp xam ngeen ne liñ ko def lépp jaay doole la te réew mi rek ko ñor kooku nag ñun war a ñoo gën a goreel nañu ànd ak moom ci ngor lim ñuy laaj barewut defal réew mi.